sant leen gërëm leen bu baax a baax mbokk téléspectateurs yu Sen TV ci euh, di leen wax dal leen ak jàmm kon ci seen émission euh, seen show émission bi di jotaay bi ñuy ànd ak yéen saa su ne ak sunuy gan waxtaanee euh, tolluwaayu réew mi ak actualité ni mu ko baaxoo di waxee saa su ne te nag ñu am mbégte dalal fii Bakhaw Diong moom nag mooy secrétaire général bu CNTS FC Bakhaw Diong ñu ngi lay nuyu bu baax a baax amati mbégte dalal Sen TV rawatina émission seen show. Ah, bisimilah rahmaani rahiim Mohamed maa ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu Fatou Abdou ma fille di nuyu Ndeye Dimet sama doom di nuyu borom kër gi ak yéen ñi nga xamee ne yéen a fi nekk di nuyu aussi téléspectateur yi may seetaan yépp mm. di nuyu aussi wax dëgg yàlla tous les travailleurs du du Sénégal yi nga xamee ni dañu bokk ci ci dañu bootu ci centrale syndicale yi surtout la CNTS FC bi ma jiite mm-hmm. très bien merci jërëjëf euh, ak yow la ñuy àndal waxtaan ak yow itam ci actualité ak tolluwaay réew mi nañ ci lu soxal loolu du ci yot benn yoon daa ci ànd ak Fatou Abdou Ndiaye ak Ndeye Dimbé Ndaw mbokk yi léegi-léegi ñu tàbbi ci waxtaan bi baxaw jong laaj bu njëkk bi euh, day dem ci euh, situation euh, travailleurs yi ak yi nga xam te ñu ngi ci biir entreprise yi amee jafe-jafe lool te mbas mi waral ko ñu ngi for sax ci wéyu bay ci ne bëriwaan ay dossiers yu nekk tey jii nii ja seen bërëb ba ngeen koy traité alors situation travailleurs yi ñu nekk ci entreprise yi te mbas mi teg leen jafe-jafe waaw Mohamed maa ngi lay nuyu bu baax kontaan ci question bi nga ma posé ndax ñun travailleurs yi rek moo ñu fi teg te situation bi ñu toll muy situation mbas mi yaakaar naa ni le monde du travail waxuma sax Sénégal. Mhm. le monde du travail daf ko yëg surtout fii ci ñun Sénégal. absolument. Euh, yi ñu ngi jànkoonteel lu metti mhm. tous les travailleurs laa wax parce que mbas mi doy na waar nërmeel na sunu économie. de sorte que wax dëgg yàlla ñu ko gën a yëg dëgg la. ñi ci kër yi mais ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey muy entreprise yi muy bureau yi muy fépp defe naa ni euh, ànd bee suusandoo man defe naa ni man amatuma jot li nga xamee ni moo moo moom moom la ñuy def matin ba soir mm-hmm. moo di travailleurs yu ci bare dañoo daw wut siñu mm-hmm, parce que dañu nekk ci difficulté yu metti ci secteur surtout dans le secteur de la restauration de mm-hmm. l'hôtellerie sonn nañu lool lool lool lool ak ñi nga xamee ni ñoo nekk ci yeneen entreprise yi mhm. comme Sénégal Tannerie comme Sojec ñi nga xamee ne ay travailleurs yoo xam ni vingt cinq mois Sojec mhm. amuñu salaire quand même kenn fayu leen vingt cinq mois je dis boo demee dans le secteur de l'hôtellerie boo demee teeru bi gis ngeen leen seen dossier ngi ci man mhm. ñu ngi yéeg a ko ko wàcc ci tribunal cent vingt et un travailleurs licenciés ñu licencier leen fayuñu leen seen xaalis verser que ci compte yi xam ngeen banques yi nu ñu mel banques yi toog ci amuñu dara ñu ngi taxawaalu fayuñu leen benn indemnité nga dem ngor jaaraama bi ñu ngi def chômage technique mhm. travailleurs yi démb la mhm. démb lañ ma seet si ne ñu bind travailleurs yi dañ leen ni dafa am secteur boo xam ne dans le dans le secteur de Ngor jaarama secteur boo xam ne travailleurs yooyu yëpp. Mhm. yow dañ leen di yóbbu en chômage technique. à partir du 2 février bi passé. Mhm. pour sept mois et sans salaire c'est extrêmement grave. Mhm, travailleur boo ko yóbbu chômage technique dafa am ci ci ci ci ci euh, ordonnance bi nga xamee ni moom la le président Macky Sall bindoon. au mois de d'avril au mois de mars bi mbas mi soo ko commencé dafa am loo xam ne daf ko bindoon mu ni leen ci plan de résilience bi dafa am ordonnance numéro un bu mu bindoon boo xam ne dafa concerner travailleurs yi mu ne woon bu ñu yóbboo travailleurs yi en chômage technique nañ leen fay quand à hauteur de soixante-dix pour cent tout à fait ñoom l'État dina dimbale yooyu entreprise mm mais am na entreprise yoo xam ne respecté wuñu ko. respecté wuñu ko dinañ ci loolu mais li ma bëgg a laaj mooy au delà li euh, nga xam te mooy secteur hôtellerie yi euh, yan ci ay travailleurs entreprise ñoo amee jafe-jafe ak jafe yooyu bu ñu ko mënoon xam lan la. dama ne secteur yëpp am problème. tous les secteurs. Mhm. secteur éducation. Mhm. am na problème secteur santé. am na problème collectivité locale damay dem ci public bi rek secteur poste oui poste la poste télécommunication. Hmm. am na problème. secteur euh, nu mu tudd hôtellerie wax naa ko am na problème. absolument secteur tannerie am na problème. secteur euh, industrie alimentaire commerce. Hmm. partout dama ne amul benn secteur boo xam ne man nga ma ko laalal. te duma la ci jox exemple. tout à fait kon si ki a lakkandoo fépp daan ko gën a yaatal le temps que ñu bàyyi Fatou Abdou Ndiaye moom itam mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw ba la nuyoo. fay nañ la bu baax Mouhamed nuyu Ndeye Dimet nuyu également euh, madame Diong. maa moom lañ ci baax taxaw am mbégte dara la ci plateau bi. gëjoon la gis loolu également. Euh, euh, wax nga sànq ordonnance numéro un boo xam ne ci loi d'habilitation. Ah. la ko président de la république jëloon que ne ah. kenn amul sañ-sañ sax dàq te ku dem ba mënatoo. Ah. ba bëgg a dàq fa nga fay soixante-dix pour cent mais loi d'habilitation boobu jeex nañu yóbbu ko assemblée nationale. deuxième vague ñëw est-ce que jël nañu en compte mbas mi li mu nar a indi ci ay jafe-jafe ci koom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey lan mooy doon seen ëllëg. loi d'habilitation bi dafa am mais dafa am loo xam ne nee naa la dafa am loo xam ne décret la dañ ko signé. Mm-hmm. donc il doit respecter parce que mbas mi jeexul. Mm-hmm. en période. de Covid de la de la Covid xaw ma ñii ni wax du Covid ñii ni de la Covid. donc mm-hmm. dañu ni. pendant cette période. képp koo xam ne da nga yor liggéeykat bi di leen liggéeyloo. bu fekkee da nga leen yóbbu chômage technique na nga leen jox ndàmpaay. tout à fait soixante dix pour cent. nous on ne peut pas mënuñu taxaw di wax ni loi la bu demoon assemblée mais dafa am lu luñ ci. Mm-hmm. ordonnance buñ ca génne. bien sûr donc ñun ci loolu la ñu téye pour wane ni amuñu droit lii dañ ciy profité Fatou waxuma sax chômage technique dañ ci profité pour licencier. Mm-hmm. nous sommes tous en sursis en tant que travailleurs. parce que xamuñu kañ la mbir mi mbir mi di jeex. ñu ngi ci deuxième vague bu deuxième vague bi gënee metti yàlla bu mu am. Mm-hmm. ñun fu ñu jëm ñun travailleurs Sénégal yépp laa wax. vous y compris yéen jàng yéen euh, kii parce que vous des travailleurs comme nous donc pour nous le respect bi nga xamee ni moom la ñu def ci ordonnance boobu dañ ko war a respecter ñun ñoo ngi dem tribunal ñun ñu ngi dem tribunal ak ay ay entreprise chef d'entreprise la faute à qui madame Diaw la faute xam nga lan la l'État a une part de responsabilité xam nga lu tax su ma bindee ordonnance wax ni nañ def lii des fois li ma la wax damay sévir. sanctionner pourquoi pas. Mhm. dafa sanctionner. Mhm. mais parce que dañ leen bàyyi ci lu leen neex chef d'entreprise yi il se il se cache derrière. Mhm. cette pandémie. pour semer vous m'excusez du terme tous la merde. parce que ñu ngi dàq nit ñi sans aucune raison ñu ngi ciy profité di toroxal nit ñi. ay des milliers des milliers et des milliers de travailleurs ñu ngi toog. te je je l'avais dit ici. j'avais dit que bu ñu moytuwul danañ dàq. plus de quarante mille travailleurs. et je pense que. am na ñu ñëw confirmer li ma wax. mais mais lan nga lan nga jàpp ci xayma puisque yaa ngi wax sànq restauration hôtellerie le secteur du tourisme euh, en quelque sorte mais yamul foofu bu ñu la déggee am na yeneen secteur ak yeneen yu mu laal yéen seen seen syndicat ñaata ngeen xayma comme chiffre ci ñi nga xamante ne jot nañu ñàkk seen liggéey. mais mbas mi moom moo ko waral. suñu central. xam nga kooku mënoo ko xayma. Mm-hmm. ay centaine centaine de travailleurs parce que xam nga lu tax li ma ma wax la ko. Mm-hmm. man réclamation bu ma jot. te mu bari ah, te mu bari <laughs> mënul nekk moyen de cent travailleurs yu ñu dàq mënul nekk mënul nekk quatre mm-hmm. cent cent mm-hmm. parce que dañ koy def par pàcc bu ñu dàqee pàcc bi mm-hmm. dañuy bàyyi yóbbu ñeneen chômage technique bu ñu yóbboo ñooñu som boo dellu seen ñu dàq la loolu moo am ci secteur fii secteur yi fi nekk yëpp foo touché laa wax dans le secteur privé dans le secteur publique xam nga nu ñuy def retard de salaire dafa bare boo demee poste l'État dafa ameel poste mat na presque ay quarante milliards. Mhm. les travailleurs a travailleurs nga ne di am ay retard de salaire. boo ñëwee au niveau de l'enseignement gis nga jàngalekat yi commencé nañu seen mouvement yi. di laaj monitoring. mais grogne sociale boobu fan la mën a jural lan la mën a jural Sénégal. mais yaa ngi wax sànq manifestation wax nga ko les travailleurs de la poste dégg nañu leen fii du benn du ñaar. Mhm. gis nañu le secteur d' éducation nationale qui réclame aujourd'hui ay primes ay. indemnités le secteur de la santé le secteur de la santé. les collectivités locales waaw indemnité ak yooyu. bëri nañu secteurs yi mais grogne sociale boobu lan la mën a jural ab réew en cette période. non grogne sociale bi xam nga lu tax dañu war a apaiser. Mhm. le climat social. accord. apaiser climat social bi mooy indi jàmm ci réew mi parce que nit ñi ñoo sonn xam nga ko amatul loo lekk tu es capable quelquefois de faire du n'importe quoi mm-hmm. donc il faut qu'on fasse très attention tout à fait pour ñu mën a gérer cette situation ba mu jeex. absolument c'est important c'est important euh, dañuy jox euh, Ndeye Dimet tam moom mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw ba ñu la nuyu. lay fay Mouhamed euh, di la nuyu di nuyu Fat Abdou. Mm-hmm. di nuyu Maman Baxaw. Mm-hmm. am mbégte loolu dara daal la fii si suñu plateau. merci beaucoup alors yi liste nga ko. Mm-hmm. mais le problème aussi mooy travailleurs yi rek la ñuy dégg ñoom ñu yuuxu ci rajo yi. ana centrale syndicale yi. waaw loolu moom d'accord naa ci ak yow parce que man dénoncé naa ko fii. parce que mënuñu nekk ay centrale syndicale ay travailleurs affiliés ci sunu centrale yi ñu nekk ci ay difficulté te war ñu leen taxaw man de ma ci parce que tout le monde m'entend déggoo li ma la wax boo xëyoon tey sama bureau xam nga ñu ci période mbas dañuy rang man leen dimbale leen ma boog distanciation sociale <laughs> pour ma rek rek régler loolu c'est tout un problème parce que dossiers yi ñoo bëri une centrale syndicale bu fekkee réellement li ngay wax dëgg la yow yaay majoritaire yaa travailleur yëpp yow la ñu àndal nangam ku ci am problème war nga taxaw. boo demee compagnie sucrière y' a des problèmes y' a des problèmes te y' a de centrales syndicales yu nekk foofu. Mm-hmm. nga dugg dans le secteur du commerce y' a énormément de difficultés transport. Mm-hmm. dimbale nañ leen de nee nañu mm-hmm. nañ leen mais dimbal ba doyul. secteur de transport ñoo nga nee di xëccoo. parce que am na ñoo xam ne nee ñu jotuñu dara les travailleurs de les artistes dimbale nañ leen mais les jeunes musiciens dégg nga nit ñi lu ñuy wax ay miettes lañ leen jox ainsi de suite mais yeneen secteurs yi lu tax dimbale wuñ leen artisans yi laa gis euh, transport ak les musiciens bu weesoo euh, kenn ku nekk li ñuy def ci wàllam est-ce que alerte ngeen le président de la république ngir wax ko abus yu nga xamante ne nii moo nekk ci entre dama man dama def mémorandum booboo gën parce que man damaa sonn. Mm. jigéen laa mais quand même je me mm. dañu def mémorandum lépp loo xam ne problème la ak secteur bu mën a doon toog naag ak yow laaj la say problème ñu def ko ci mémorandum ma jël mémorandum bi jox ko ministère du travail mu jox ko président de la république. Mm. mais nous on a crié on sur la table dañu ne président am na loo xamee ni mais xanaa def ko yëgul. nous avons un ministre du travail ma félicité aussi ministre du travail foofu ndax an fii laa fi toogoon ni leen les inspecteurs du travail liggéey bu ñu war liggéey defuñu ko ndax euh, amuñu moyen amuñu moyen de logistique amuñu moyen bu ñu defee parce que chaque inspecteur du travail war na dugg ci entreprise yi di seetlu fii inspecteur du travail daf fi war ñëw dafa war ñëw feneen feneen feneen feneen loolu mooy seen liggéey léegi dossier yëpp léegi ñu ngi tribunal du travail parce que inspecteurs yi dañuy dañ lay wax ne la bul licencier nga ne man damay licencier dossier bi ñu xeex ñun ñu xeex ànd ak yow dem tribunal loolu mooy problème bi nous on a écrit lépp loo xam ne problème la ak proposition boo xam ne def nañ ko pour mën a dimbale travailleur mu ngi ci taabalu président de la. finalement est-ce que euh, président les autorités jël nañu en compte bu baax a baax préoccupation des travailleurs parce que wax nañu ni dugal nañu 1000 milliards yoo xam te ne dañ ciy jàppale le monde du travailleur wax nañ tamit dañuy jàppale le ménagers ak tranches sociales yi mais aujourd'hui est-ce que am na impact réellement ci pouvoir d'achat de de non je ne le pense pas je ne le pense pas sinon yuuxu du am parce que génn nañu 1000 milliards. mille milliards yi lañ ko nañ ko séddalee je pense que euh, les concernés les ministres concernés ñëw na ñu def wax ko mais au niveau ñun secteur bi ñu nekk waññal naa la ni la secteur transport ñooñu transporteur yooyu borom taxi yeeg oto yu mag yeeg nangam ñooñu laa la wax artisans yi musiciens yi amul benn travailleur boo xam ne jot na ci mille milliards bi ñun mënuñu taxaw di tàccu léegi nag finalement lan mooy solution bi dañuy prévoir beneen budget pour deuxième vague bi accompagner les travailleurs wala qu'est-ce qu'il faut. xam nga ça c'est ça c'est une décision gouvernementale décision gouvernementale man mënuma ci wax. li ma demandé rek moo de laaj. mais vous vous êtes une voix autorisée. waaw nekk ci centrale syndicale. waaw mais laaj déggoo li ma la proposition def nañ ko ñun. d'accord. xam nga ñun dañoo proposer ni ñun travailleurs dañ leen war a dimbale moi je pense que ni il s'y pense. parce que xam na dañ daan def ñoom di def subvention di ko jox quatre centrales syndicales. di leen jox at mu ne dégg naa bi yoon da di ñam bi at mu ne trois cent millions. ñam. ana bi <laughs> laaj nañ leen seen man dama di dama di nit koo xam ne dégg naa a jot. ndey dama dama directement lu may wax dama koo ñeme. man dama tukki woon j'ai reçu une correspondance. absolument demandant aux centrales syndicales des travailleurs ñu joxe seen numéro. de compte comme nit ñu doon dimbalee. Mhm. premier mai parce que nous on n'a jamais reçu de subvention. Mhm. premier mai ba premier mai la ñuy dindi as tuut bokk la ko ne la pour sa sa organisation travailleur mhm. mais bii. trois cent millions six cent millions nga jox ko quatre centrales syndicales. ah loolu ils ont demandé maintenant. nee nañ dañuy yaatal. waaw mais bu ñuy yaatal nañ ci gaaw bu ñuy yaatal nañ ci gaaw. parce que daan nañ ko joxe. Mhm. te travailleurs yooyu ñu ñu ko doon jox gis ñu ko. très bien alors euh, bëgg naa ñu ñëw ci le passif social parce que tamit entreprise yi ñu ngi leen di dut baaraam en quelque sorte mais gis nañu ne état aussi euh, quand même madame euh, Bakhaw Diong état yorel na koppar gu bari bari yéen ci entreprise sànq yaa ngi cité benn muy euh, groupe poste alors aujourd'hui est-ce que itam du ñu euh, gën a jàngatee situation yi nu mu gën a profonde ñu xam ne état yi itam na def benn d'une part wàllam def li ko war muy fay yenn entreprise yi. je suis entièrement d'accord ñoom itam ñu mën a ñu mën a dérouler. je suis entièrement d'accord ak yow mais dafa am entreprise yoo xam ne état dimbale na leen te dàq nañu. ah loolu moom day. amoon na du jaaduwul. ay preuve laa wax fam entreprise yoo xam ne état dimbale na leen mais dañoo dàq jaaduwul entreprise yi ngay wax société yi comme la poste et consort mais dañ leen yoreel ay milliards ça c'est c'est c'est entre l'état mm. et la, ministère de finance et la poste. c'est beaucoup d'argent te beaucoup d'argent ay milliards la. mais inégalité boobu. ay quarante c'est pas normal. disparité boobu. nga xam ne jàngalekat la. Mm-hmm. man syndicaliste la. man dama fi nekkal. intérêt travailleur. nekkul ma fi intérêt ma demb nii ma sàmba bu état defee lu baax ma taxaw fii ni def na lu baax. mais travailleurs yi dañoo sonn nous sommes fatigués. mais lan moo mën a expliquer état jàppale benn entreprise entreprise boobu mënul fay ay liggéeykatam état amel beneen entreprise on parle de la poste on parle des hôpitaux yi nga xam ne ay milliards daanaka ñoom ñoo nekk tey bor boo xam ne. nguur moo leen ko amel lan la ñu mën a comprendre cette situation. xam nga euh, malheureusement. xam nga ñun dañoo dem vers des élections ñu ne dafa am ñeenti centrales yu génn représenter toutes les centrales syndicales <laughs> ñu ne bu ñuy def négociation wala bu ñuy bu ñuy def discours ñeenti centrales yooyu rek ñoo ciy wax à l'exception de Sidé Ndiaye bi nekk cinquième représentative hmm. xam nga loolu même suñu représentative war nañu nag jël en compte donc les ah, préoccupations des travailleurs niñ koy jëlee moo di man bu ma amee ay préoccupation war na ñoo mën a dajale boog balaa ñuy dem di négocier wala parce que du ñoom du seen travailleur rek ñoo am problème te bu ñu toogee di wax seen problème travailleur la ñuy wax alors que y a des centrales syndicales yi fi nekk bien représenté na yoo xamee ni dañuy xeexal travailleur war nañu boole yépp ñu waxtaan seet nan la ñuy xeexe ban centrale syndicale la fi grève da nga ko gis mais est-ce que du seen faute bu fekkee yéen ci seen biir. ma ne central syndicat langage madame Diong bu fekkee yéen ci seen biir bu na parler pas le même langage. waaw d'accord naa pour jébbal ko ki nga xam ne mooy kilifa commune solution responsabilité est-ce que du yéen. waaw Fatou d'accord naa mais yow ki nga xam ne yow yaa ne yow ma yow yaa jiitu. yow yaa représente centrale syndicale est-ce que du yow da nga war a woote. war ngaa taxaw ooy. wala war a woote. Mm-hmm. nit ñi waxtaan nous on est prêts pour aller répondre joxe suñu proposition. mais ku ne cëggal guy ngay def mais nous sommes dispersés l'État en profite nañu waxante dëgg au détriment de tous les travailleurs surtout la base mm-hmm. mais lekk sa xaalis ñu jox la rek nga kontaan mm-hmm. l'état wala mu jox la poste mu fal la wala nangam étudie pas la vérité te yow yow dimbale état bi dimbalewoo président de la république. il faut qu'il sache que. lii mooy problème bi fii la problème bi nekk ñu teg ci sunu baaraam mu jëm ko régler. mais du la préoccupation de certains qui disent que euh, ba xaw que ne dafa mel ni itam yéen da ngeen ànd mbas mi relâché wu muy central syndical yi parce que lutte bi dafa xaw a wàññeeku bu baax a baax ni mu intensé woon euh, représentativité bi itam travailleurs yi gis seen bopp mais dafa mel ni. xaw ma mbas mi moo fi jaaram déet waaye xeex bi dafa des carrément ci jamono ji nga xamante ni nii foofu lañ gënoon mën a soxla nag ànd syndicat yi euh, wala syndicalistes yi pour ñu gën a taxawal nag travailleurs yi. waaw loolu am na. xeex bi des na mais man demal inspection du travail fépp laa wax. demal fi fii inspection Dakar demal inspection de Rufisque. Mm-hmm. demal fii ku dem xam na ba xaw inspecteurs yëpp xam nañ ma maa nga fa rek di xuloo mm-hmm. alors li nga yi. Mm-hmm. léegi nag mais nag pour rassemblement yi. xam nga c'est interdit. même les réunions ñun buñ koy def léegi on convoque que les délégués mhm. de personnel délégué de personnel yi bu ñu ñëwee ñoom la ñuy jox information yi ñu mën koo yóbbu mhm. parce que bu ñu def bu ñu rassemblé wa ñu jàpp ñu alors loolu rek mooy problème bi. ni nga yoree centrale syndicale itam noonu nga yoree syndicat d' enseignants. Mhm. muy SNEL FC. Mhm. donc tamit euh, question d' éducation tamit daf la soxal parce que enseignante nga wax nga ko léegi. alors euh, sa jàngat ci nombre de décès yu ñu wax ni jàngalekat yi décédé nañu ko ak euh, ni ñu doxalee ci protocole sanitaire bi nga xam ne tey jii syndicalistes yëpp dañoo maase ànd ni lu bëri des na. waaw dafa des lu bare au niveau de l'école parce que foofu laa doon xaar ngeen ngeen wax ma laaj ma fi wax man jàngalekat la mais situation école sénégalaise dafa préoccupante parce que jàngalekat yu bare jaar nañ fii ci seen table yi te ñëpp mënuñoo waxandoo lu dul dëgg dama ni protocole sanitaire bi ñu war respecté respecté wuñ ko naan école fas mi ñëw na nan tëdd lépp ba kañ nañu respecter d'abord mesure barrière bu demee ba sës nous on avait proposé pour un certain temps ñu tëj book ñu hmm. arrêté njàng mi ñun ñoo ko proposé. kon da nga jàpp ne jamono ji dañu war a arrêté. dama ne jamono bii li ma gisoon man avant may tukki ma gis ko élèves yi di ko am. Hmm. mu dugg ci élève yi dafa am lu ñuy nëbb waruñu ko nëbb. Hmm. élèves yi dañ ko am ñu ko am jàngalekat yi am na ñu ko am bu ñu naree. dans une école de mille et quelques élèves ñetti élèves ñeenti élèves wala classe bu ne am fa kenn ñu ne dañuy continuer di ko nëbb ba kañ covid baa ngi gën a rey waxuñu du ñu wax ni diw la wala diw la wala diw la da ngay def da ngay gis rek sur deux mille et quelques yaa nangam yu ko yu am mais est-ce que tey mënuñu wax manque de sérieux bi ñu gérer euh, crise bi ci wàllu njàng mi ak njàngale mi parce que ñu ngi wax ni euh, protocole bi dafa wax ni élève bu nekk war nga am au minimum trois masques ñu gis ni ñoom cinq millions de masques la ñu mobiliser te bu ñu ko séddalee élèves yi daanaka du ñu am sax kenn ku nekk ñaari masques non je suis d'accord avec vous ma dañ ko njëkk a xeex ñun déggoo li ma la wax nous on a dit que boo nee respecté wuñu benn mesure yi kon li manqué bare na c'est pas normal mënoo wax ne élèves yi da war ku ne am trois masques waaye les collectivités lan moo fi seen liggéey ñoom it collectivités locales yi ci première vague ba ku ne di wane ni le président man maa nekk nii man maa da nga doon dem nga gis leen ñuy joxe ay eau de javel ci école yi di joxe. mais deuxième vague bi ñëpp relâché. relâché ce n'est pas normal. moo tax Covid bi ñaanuñu yàlla mais pour mu jóge fi. Mm-hmm. ça va être extrêmement difficile. d'accord alors ci dossier yooyu euh, maa ngi ko doon wax euh, xam naa ne di nga ne kan moo la jox information bi li ngay traité ci dossier jamono ji. kan xamul ni mu toll bari na lool <laughs> bari na lool. mais est-ce que am na yenn yu ci am satisfaction am na yaa ngi ci am feedback. ci yenn ñi en tout cas est-ce que yaa ngi am retour bu baax ci yenn ci dossiers yi ngay traité en tout cas pour yenn ci ay travaux. waaw dossiers yi am na ci am na yuñ ci am quand même satisfaction. parce mm. que am na boo ñëwee ci dans le secteur du bâtiment. Mm-hmm. Euh, SAD. dafa dàqoon euh, ay yi ak ay CDD ñu xëy rek licencier leen bu ñu ñëwee ca bu ñu ñëwee song si leen ñëw waxtaan ñoo xam nga nag nee naa la y' a une stratégie pour def négociation négociation c' est pas du saaga fii di takk ay morso xonq ak di saaga déedéet dafa am beneen stratégie booy adopté rencontrer d' abord la direction. Absolument. avec en présence des délégués ngeen discuté mu seet lan lay am bi ñu demee ñun rencontrer la direction de la SAD onze la ñu dàqoon CDI dàq yeneen une seen xaw ma neuf CDD dàq leen mais ba ñu toogee ba négocier waxtaan ak ñoom ba directeur bi dégluñu bu baax man dama dafa ne oui oui on va voir on va on va vous revenir nangam nang mais damaa dem jóge jóge sàdd fii ci wetu soleil la ba yegg si ba pompier on m'appelle pour me dire on va réintégrer tout le monde. Mm. donc donc muy satisfaction. ah ça c'est une grande satisfaction et je remercie le directeur de la SAD. Mm. mais boo ñëwee ci yeneen yi nga wax. comme dans les autres secteurs. xam nga lu ñuy wax bu ñu négocier ba pare. ba d'accord ak ñun. dañuy dem ba ca fond ba ñu ne. waaw ñun de nous voulons bien mais dañu bëgg dañ bu ñu leen bu leen di fay aussi ñu échelon échelonné que ay six mois 7 mois ça veut dire. bu ñu la waree fay yow. Fatou Abdou Ndiaye 1 million dañ koy échelonné pendant 6 mois. ça c'est inadmissible. et nous refusons bu ko defee inspecteur bi danañu jàppale nag ndax inspecteur bi travailleur bi la fi nekk dinañu jàppale ba mu dëgër bu mettee na ñu def non conciliation yóbbu yépp ci juge juge bi nga xamee ni moo nekk tribunal du travail et nous remercions cette femme c'est une brave dame boo xam ne day xeexal liggéeykat bu fekkee yaa ngi ci dëgg nag mm-hmm. da lay xeexal parce que il nous protège te nos dossiers man de li ma fa yóbbu ci dossier xaw ma nu mu day faatu mais dossiers ñu ngi avancé ah, alors alors très sincèrement mm-hmm. parce que am na yoo xamee ni sax ñeneen ñi dañu ni dañu jël seen avocat mais seen avocat dañ ñu woo démb j'attendais un avocat. mais il n'est pas venu il venait pour négocier avec nous. et c'est très important dossier yooyu am beneen dossier boo xam ne nag c'est politique. Mhm. Euh, nga nekk syndicat euh, syndicaliste mais également. di observer nekk également ci ci politique. Mhm. Euh, tey li nga xamante ne mën nañu ko dippee politico-judiciaire parce que mbiru yoon la bu ñu wax mbiru politique. Mhm. muy viol boo xam ne dañu ko jiiñ Ousmane Sonko te benn masseuse def ko boobu ak léegi def na benn ay bés yu ko weesu tout d'abord ban jàngat nga am ci loolu nga xamante ne mi ngi def actualité tey Sénégal. waaw loolu Fatou bëgguma ci sax sore parce que c'est un dossier très sensible mais moi je condamne le viol je suis une femme je suis une femme j'ai des filles j'ai des sœurs j'ai des mamans j'ai des tantes dama condamner d'abord le mot viol moo doon sama sujet 8 mars bi def naa yéen a nga fa woon mm. seen seen kii donc mais dossier bi dama yaakaar ne dañ ko politiser bu mu ëpp un dossier pendant devant la justice coow li bare na parce que xam nga ci ku mu dal la mhm. ki mu dal la mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko bi mu dal moo nekkoon l'opposant de du régime donc nit ñi politiser nañ ko yóbbu nañ ko foo xamee ni wax dëgg yàlla ëpp na mhm. man sama si sama xalaat mhm. dama ne comme mbirum yoon la te yoon moo yor dossier bi xam nga ay yii ñuy wax assemblée moi j'ai été parlementaire li yàgg na fa am lever <laughs> immunité parlementaire mm-hmm. ça ne veut pas dire que tu coupable mm-hmm. mais mais wax ji moom mooy euh, euh, euh, tey yaa ngi wax ne c'est politisé mais mbir mi ci ki mu dal dafa tudd complot d'état ndax kàddu yooyu mu yëkkati yow convaincre na je ne suis pas d'accord mm-hmm. sur un complot d'état man Bakhaw Ndiongue je peux je nun koy waxee auteur euh, violent boo ku góor wala xale bu ndaw ni diw violé na ma ça peut aller ça peut arriver góor ak jigéen loolu yëpp man na nekk viol ça pas c'est pas dit viol sexuel y a d'autres de viol ah mais dafa am loo xamee ni aussi comme li nga wax man damay dem man bu dee man man dinaa dem raxas sama bopp Ça m'a fait comploter. da nga tudd sànq assemblée nationale euh, lever immunité parlementaire n'est pas synonyme de condamnation loolu nga wax. mais bu ñu gisee ne depuis 2012 ñi fi jot a ñëpp dañu lever seen immunité parlementaire fa mu mujjee exemple yi ñu ngi koy tudd est-ce que euh, dinañu am yaakaar euh, ci une assemblée nationale boo xamante ne war na mën a saytu bu baax a baax ba pare door a dindi malaani kuy laaj. xam nga ku ndobi ndey sa maam rek xëñ na foo seen lu ñuul daw comme am na ci Karim Wade am na ci Khalifa mais attention amoon na ci sama président Omar Sarr amoon na aussi ci Ousmane Ngom amoon na ci Abdoulaye Balde. 2012 ak léegi waaw 2012 laa wax ba léegi ak léegi am na parce que ñooñu ñooñu ab 2013 ou 2014 la ñu levé woon seen immunité parlementaire mais dañoo delluwaat bu mu leeree ñun ñu ngi toogaat mais rien ne nous dit bu ñu levé sa immunité parlementaire rek dañ lay tëj vous avez des avocats. doo am nga avocat. d'accord affaire bi justice la jëm levée immunité parlementaire c'est pour permettre à la justice mu accéder ci yow. Mhm. ñun bi ñu defee affaire bourse du travail ba. man j'étais li ma bëgg a wax kay li ma bëgg wax kay mooy ni mu bëree c'est-à-dire que de 2012 ak ak léegi ni fi levé seen immunité parlementaire dafa bëri te ñooñu ñëpp dañu farewul ak fi nga xamante ne foofu la nguur gi fare. c'est c'est là la question mais c'est de bonne guerre Fatou. Hmm. te de bonne guerre de. nguur xeex ak yow. da ngay préparé da ngay jatu na soccant préparé wu nguur bu la bëggee daaneel faatu Abdou moyen erreur minimum boo ko defee erreur danañ ko exploité du nguur yëpp du nguuru Macky Sall rek du nguur yëpp la waaye xool leen li xew ci ci ci dans le monde entier je t'écoute dama lay déglu ngay ngay ngay def ay ay ay ay reportage partout mm. boo defee l'erreur sa pay cash man maa la ko wax donc fii man bëgguma dugg ci dossier boo xam ne comme mu ngi dem te da nga ciy wax sax on t'appelle on on te jette des des des t <laughs> est-ce que nekkul yooyu on man je n'ai peur de rien. moi je n'ai peur su fekkoon dañu uh-huh. tranché. Mm-hmm. moi je dis. mais dama ne justice la levée immunité parlementaire danañ koy lever wala duñ ko lever. la commission. ak les la assemblée. sans charge seen plénière ñoom ñoo koy régler c' est pas ah, ah. nekkoon nga député je crois que deux fois. ci ah. nguuru Abdoulaye Wade. alors euh, bëri na ay nguur yu fi jaar. te bu ñuy ut nguur dañuy wax ni dañuy indi ay coppite bokk na ci defar assemblée nationale tey assemblée nationale ni ñu ko tëggee ak ni muy doxee est-ce que répondre na aux attentes des populations. xam nga la assemblée nationale xam nga politique man bi ma fi nekkee aussi ci nguuru Abdoulaye Wade. la majorité l'emportait toujours sur tout hein. tout à fait. gis nga ñii di fi xeex. n'oubliez pas que Cheikh Bamba mas na. enchaîné enchaîné boppam ci buntu assemblée j'étais là-bas. le 22 juin. tout à juin ci biir salle bi la ma fekk. Ah tout à fait j'étais là-bas. nguur bu jiitu bés na mm. la wër sa majorité boobu li nga bëgg moo fay am. Mm. majorité mécanique bi ñuy wax. final finalement. xam nga lu ñu war a même le choix. am de scrutin. am na lu ñu proposé si dialogue si am na am na lu ñu proposé si dialogue ba mais crainte yi mooy est-ce que nañu ko waxee dinañ ko defe noonu. ba nga xamante ni député fa nekkal président mais askan mi dafay nekkal. waaw xam nga député normalement askan la ko war nekkal. absolument ndax moom askan moo la fal parce que dañu wàññe carte askan wi ba nga am li tax ñu mën la toogal te boo fa toogee da nga war dem pour l'intérêt wu askan bi. tout à mais malheureusement dans nos pays. ça ne ci région sous-région bi <laughs> partout hein. Eh, eh. dans nos pays ça ne se passe pas comme ça. Ah, parce que su fekkee ne aussi man dama nekk opposant bëgg a def toujours du dilatoire. di saaga l'état di saaga gouvernement bi di def lii te du ma def proposition yu concrète yoo xam ne ku ko dégg. Hmm. mën koo téye. Hmm. keneen ku nekk te gouvernement bi day tëb. au lieu ñu wax sujet bi ci sujet bi dañuy jëtante di saagante ay invective alors euh, finalement c'est pas bon peut-être ñu ñëwaat tuuti rek ci liggéey bi waaw ñu daanal foofu waxtu bi jeex na waaw yóbbu woon euh, Cheikh Diop nga gañe ko fu mbiri toll waaw gagné naa ko moom xam nga moom il s'entête toujours xam nga di wax ni il est le secrétaire la CNTS <laughs> FC xam nga nag loolu man mënuma ci dara bu toogee ni moom mooy secrétaire général CNTS FC te te tribunal prononcé wu na comptam yëpp bloqué naa ko ah ouais dërëm. mënul jóge ci moom dem CNTS FC tous les comptes sont bloqués. loolu xanaa da ko noppi waale parce que dégguñu. du ko wax dafa <laughs> ci foog ñu ñëwaat yaa. ah, ah dafa dafa dafa na waroon na waroon doon tàmbali nga gën ko yaatal mais on aura Ba Xaw Diop. merci beaucoup ñu fàttali ni yow yaay secrétaire général euh, bu CNTS FC am amoon nañu mbégte dalal la. Euh, ci émission Sen Show. jërëjëf man kontaan naa ci yéen trop parce que sama ay doom rek ñoo nekk ci plateau bi. te nit ñi nit da ngeen nit yoo xamee ni da ngeen direct comme man absolument donc question yi amul benn question boo xamee ni mhm. occulté ngeen ko man yaakaar naa aussi ci yaakaar ni mhm. amul benn réponse am nañ satisfaction remercier aussi vraiment waa CNTS FC mhm. ñi nga xam ne ñoo ma fal ba teg ma fi wax travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk dans des difficultés du courage nañu nañu patienter parce que ñu ngi leen di xeexal te yaakaar naa ni xëcc bu bu bu daggu rek dina ma sa dagg très bien c'est clair le message est bien national bu CNTS/FC jërëjëf itam Fatou Abdou Ndiaye ak di met Ndaw ñu gunge woon ci bile émission seen show dina dikkaat semaine prochaine ak yeneen incursion laata boobu wëlin di programme Sen TV la chaîne leader jaa ngeen jëf am ci lu ñu jàpp te mën a liggéey xememteefam doon wàccu